bàkk ba jibeti na jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu fii ci wasaare làmb tey nag ñoo ngi fii ci Joal euh, ci terrain bi ñuy wax Toubacouta tey nag euh, ñu Pape Thialis woo ñu fii euh, galaa bi nga xamante ni démb la commencé woon mise bi de 1 million 500 démb di woon lese yi tey di luur yi ki nga xamante ni mooy Tapha ak Boy ñaaw war fee ñëw def jàkkaarloo face to face neexal fii defe naa ni fii la làmb ci saanoo ma ànd sama cameraman bu ñaaw bi démb nag fi neexoon na waaye defe naa ni tey moo koy dàq kàggu defe naa ne mën na dem ci biir xool am ci biir Aca let's go. kor khadi kor khadi torgo fe mbapni he me de kiñala ye Yo va a poner lo la luna, episadio fio fambatanelo lage gor khadi torgo fe mbapte hedoya me de kiñana e waaw episadio fio fambatanelo lage gor khadi torgo fe mbapte hedoya me de kiñana e DJ episodio of baba tanelo lage gor khadi gor go fe bapne he doya me de kinyana e ah episodio of baba to laage ɓor xadi ɓorgo fe mbaɓne heɗoya mbede kiñanaye Madické ak cheval mbokk yi moo féete à gauche Madické leen féete à droite ñoo ngi noonu ñoom ñaar di manœuvrer Madické ak cheval mbokk yi déggal bi eh cheval Madické war nañ ndomb cheval Madické war na ndomb cheval nu mu koy def da yenu da koy bay wala lu doon abit pusal Madické ak cheval est dina ci génn. Madické ak cheval lu mu ko bëgg a def da koy yenu Madické Madické ak cheval ah Madické atul Madické atul cheval a ngi génn cheval a ngi bëgg a génn da koy daan wala nu mu koy def Madické ak cheval tëddal da ngay tëdd tëddal waaw tëddal daan nañu cheval Madické daan na cheval ziar naa la maa ngi lay bëggee yaa ñu ko na gis fan yëpp waaw gis nga rek nekkoon ci samay bagage rek way mais fan yi gis lamb simple bi xaw na tar mais kenn gis Ibou Senghor ñu jékki-jékki gis la Joal lan la non dafa am ci la ma nekkoon mais pare na bi dimanche mu ne ma waaj Ah. waaw instant yi bare naa quoi. tey noo gisee làmb ji nga xamante ne Jax da ko andi fii biir Joal. nga ñëw bokk ci yi. tey naka nga na ñëwee. xanaa kontaan rek incha di ñaan yàlla yàlla may ma rek incha allah def fula ak fayda rek man moom ku ma xam fula ak fayda laay di ñaan yàlla yàlla may ma ndam quoi. di kontaan bu baax a baax di xamal nuyu sama supporter yëpp nag namoon nañu maa leen gën a bilaay namoon naa mbokk yi ñooy noonu ci digg géew bi Jimmy Joalo moo féete à gauche Jibi Diop moo féete à droite Jibi Diop daaw jël ko plaqué na ko plaqué na Jimmy Joalo Jibi Diop koy xaar da koy takk lu koy def ba di nga daan oh Jimmy daan na Jibi Diop Jimmy Joalo daan na Jibi Diop da ko forcé di foqante ay baaraam ñu nga ca digg géew ba ñu nga ca digg géew ba ñoom ñaari mbër yi ba parmi avancé na nag ay ca ay songo nañ a ah, añ na ko oh, mboot nañ ko mbootum suuf ñu ngay mbootante ñu nga ca suuf ñu nga ca suuf ñaari mbër yaa nga ca suuf ñaari mbër yaa nga ca suuf a ah, mu ngi koy mboot rëcc na ee ay ca mu ngi mboot nga ca mu nga ca suuf mu suuf war na ko ndomba aa ah, daa mel ni teg na fees aa ah, teg na fees diggante Neymar moo féete à droite Pape Diame moo féete à gauche Pape Diame mbokk yi moo ngeen moo ngeen mbal vax bi ñoo ngi déglante léegi déglu naa ñaan lu saf ko ko ñama ko xam dañoo ñamante léegi ñoom ñaar Pape Diame daw na jël ko baa duñ nooju Pape Diame jël na Neymar dalay mbot dalay mbot dalay mbot Pape Diame Pape Diame fa ko dugg baaxul moo ngi koy puus mu génn moom Neymar baa du jëm kaw Kagou Kagou prudent Pape Diame Neymar Pape Diame Neymar ah mbot ko daanoogul Pape Diame Neymar caxabal caxabal caxabal daan na ko eh Neymar na ko Neymar caxabal na ko mu daanu. dafa mel ni ñoo ngi ci poids poids léger yi quart de jël na tànk ba jël na tànk ba day sigeeg moom laay lay la laa tey rek waaw tour na ko lii lan la xale yaa ngi bëre da koy jàpp daanu bul defati loolu war na ko ndomba bul defati loolu aaye naa la ko simi sembel simi sembel moo nga jóge ba baañu mbokk yi yaa ngi bëre war na ko xale yi bu na yeggee fenn fii du ñu bëgg a bàyyi Simi Sembène jàpp na Ngoy ci jàpp na Ngoy ci ma fàttali leen que mbokk yi ñëw ci quart de finale les yi Simi Sembène la nga jugee boo ci génnee dina ma jaaxal boo ci génnee eh waaye xale ay ndaanaan lañu da koy bañ na bañ na da koo bëgg na ko kaay fii Simi Sembène kii fii du lalam. jàpp na ca tànk ba eh bëgguma lii ma gisee jàpp baam sama xel day dem ci Zozo Gouy Gui eh, simi sembel atul atul xale ba sigiwaat na yenn na ko mu bañ ràcc na eh daanu nga ay naa la ko daanu nga da ngay daanu da ngay daanu simi sembel ngoog borom baar noonu du saane noonu mbokk hey Doudou Doudou Sané ngi noonu Doudou Sané ngi noonu Doudou noonu Toubacouta noonu mbokk yi lamb ji na ba noppi Toubacouta waaw waaw doo Doudou Sané Doudou Sané dugg si na Toubacouta dugg si na Ibou Senghor ngi fi borom ah ñu gis nga compétir tey ñu xëy gis sa Joal la bëgg rek bilaay mais lan la tey da ngay dañ lay gis chaque jour doo ñëw gars yi dañuy sol ay blouson ah ma dañuy gis blouson yi nga mel ni ku nekk arène tey lan la. waa gis nga suñu benn suñu benn xarit suñu doom rek moo ñu ko defaral nii quoi waaw mais ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. day bañ ñu wax turam moom mais mais ñu ngi koy ñaanal borom bi bu baax a baax ci moom trop mais mënuñoo ñàkk a wax turam li jaar li jaar bu Doudou Sané ñu ngi koy ñu ngi kontaan si moom bu baax a baax di ko jaajëfal bu baax gis nañu taxawaayam ndax couleur bi yëpp moom la quoi. mais ñu gis bi nga dugg se gars yi yuuxu mu mel ni supporters yi ak fans bare nañ côté bi te gox bi du goxu làmb noo gisee noon non gox Joal ku ko dëgg xam na ne Joal dëkk làmb la dëkk làmb la waaw ay champion ñooy jóge Joal kon dëkk làmb la da làmb la ñuy dundee ñun. mais tey lan lañ mën a xaar ci Doudou Sané. comme d'habitude rek jom fu la fayda rek jaajëf. ci kanam. ok. ci leen rek waaw sama fans yi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama mbokk joueurs yi nekk fii nii ak supporters yi nga xamante ne ñu ngi bëgg bëgg Sélé chaque jour di ko laajte waaw tey def naa retour quoi. mais noo noo noo gisee lamb parce que amateur namoon nañu làmb mbëri namoon nañu làmb làmb ji boo xoolee foo ko tëgg day fees parce que ñoo ngi fii tey dëkk Yaxya Diop Yékini ñu ñëw fekk làmb ji taaru tey noo gisee làmb ji kontaan rek xam naa ne amateur yi namoon nañ ko mais ñun ñi nga xamante ne ñoo di bëggal ñoo ko gënoon namm parce que lii culture la dafa neex dugg nga yëngal gars yëpp yuuxu supporters yi yaa ma a xam namoon nañ di kontaan tamit si président bi lu mu ko tijji dafa yàgg nag dafa yàgg mais xam nga dëgg la mbas mi fi nekkoon Sénégal la waaw di ñaan yàlla nag bu fi ñëwati quoi parce lii day dundal làmb xoolal léegi mbas mi jeex parce que léegi extrait mais boobaak léegi gisaguñ na déggaguñ na ca dara ah, noo gisee tey làmb ji ndax tey gis naa fi ay ndaanaan. ndaanaan yi yàgg dalante incha rabbi dañuy bëre de seen rek xam ku ko xam-xam ne day bëre incha allah te dama bëgg a yóbbu ndam la incha allah ngeen wax rek bu soobee yàlla. waaw baax na kon ci kanam. waaw rawul yi bët. Ngok moo ngi def ay beewam. faale gu ma de ayca <laughs> ma bu ma ci joxoon benn rek ma sangu du ma wax da ayca mbër ci ay beewam nañ dem ci demi-finale bi ba kat ba yow kaagu mbokk yi ñoo ngi ci demi-finale bi Pape Diame El Hadj Neymar ak kan ah nii la wax na mbokk yi Neymar nekk noonu. ñoo ngi ci demi-finale xale yaa ngi lewaatoo El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye jéem na dalay daan El Hadj Ndiaye daan dalay daan dalay daan bu Joal la mbokk yi qualifié Elhadj Ndiaye Para que no takk na booy ñaa ngi noonu di booy ñaa ngi noonu loolu kàggu ca yàlla jëlal ma loolu ñi ànd ak moom a ngi noonu oto baa noonu boo ñaa ci bu weex la dugg dawal jëli ko dawal dawal nan rek avancé ah la Tapha Leer a noonu Tapha la Tapha Tine la du Boy Niang Tapha Leer ngi noonu di ñëw waa Bawol a ngi noonu Tapha la mbokk la le géant du Bawol Tapha Tine Tapha la mbokk yi Tapha la mbokk yi Tapha Tine a ngi ci oto bu weex bi kaagu jëlal ma Tapha Tine jëlal ma ko moo ngi sol blouson bu weex maa ngi gis mbay guy gi ak di Tapha Leer coow li bari mbay gu gee ngi noonu ak Tapha Leer yéen a ko Kaagu jëlal ma loolu am na ñi muy ànd am na lu ñuy wis tey lamb lamb a ngi noonu lamb a ngi noonu coow li ci porte bi te Tapha ngi toog ci oto bi sol blouson bu weex ànd ak waa Bawol Zal Bawol a noonu ànd ak Mbaye Gouy Gui dafa leer Bawol Bawol yaa ngi noonu cey Tapha moo ngi daje ki nga xamante ni mooy càppaacoli bi Tapha Tine a noonu sol blouson bu weex ànd ak Ndiaye Tine Ndiaye Tine mooy dawal Ablaye Ndiaye a ngi noonu Tapha Tine a ngi noonu ànd ak Ablaye Ndiaye Zal Bawol Mbaye Gouye Gui Tapha Leer noonu le géant di Bawol ànd ak Bawol fi ngeen koy am ci Wassare Lamb Tapha ngi noonu. Tapha Tine ngi noonu. Mbaye Gouye Gui ngoog. Abdoulaye doomu ci yow. Tapha Tine ngi noonu. jëlal moo ko kàggu. yéen a ko gisandoo mbokk yi. ngi noonu.

Tapha ngoog toog day léebu wala day jat ñaan na ba ci kanam gi Tapha ngi wàcc Tapha Tine wàcc na Tapha Tine wàcc na ñoo am luñ koy sottil nee na da koy rendi cey Tapha joxe ba Mbaye joxe na beneen ba am na luñ koy sottil ci loxo yi Tapha Tine am na luñ koy sottil ci loxo bi mu waxasu sottil nañ ko mu sëlmu sëlmuwaat ñaar yoon raay ci bopp bi ñetteel yoon mu sotti ko raay ko ci bopp bi moom Tapha jeex na papa pëng ñeent Tapha Tine a ngi ñëw moo ngi ñëw mbokk yi le géant di Bawol ànd ak waa a ngi noonu yor beejanu kooba gaa ngi moom am na lu ñu wis Tapha Tine am na lu ñu wis Tapha

ñoo ngi forcer porte bi du noonu du noonu. eh coow li ngi ca porte ba may ñu jàll. gars yi dañoo bëgg a waaye service d'ordre bi nanguwul loolu. service d'ordre bi nangu loolu ñoo ngi buux bàyyi leen ñu jàll bàyyi leen ñu jàll ak jàmmam gars yi bañ loolu ndànk ak Tapha Tine noonu ñoo ngi forcer porte bi wallahi wallahi bu leen tolloo dama lay bëgg ñoom coow li bàyyi na ci porte bi Tapha Tine a ngi noonu Tapha Tine noonu Tapha Tine a ngi noonu yi Tapha noonu di dugg si Tapha na Tapha Tine noonu Tapha Tine tos ànd na def béjjénu kooba la yor ma ngay Those guys, why not? Hey, ndànk rek. ñoom Cheikh ña nga ko dal ñoom Kalmu Ndour a ko dal booy ñaa ngi noonu. waaw dañuy liggéey rek. waaw cat bi rek. day daw day daw bàyyi ko day daw. dugalal dugalal dugalal dugalal. dugalal yow.

wala ñu ñu jël saako yow. saa saa yu ma nag. Eh, maa ngi ñu liggéey waay. ay jaar baaba bu la neexee waa bi Moussa Allah moom moo waxoon na ko ma war a yëngu mu yëngu muy daw mais mais loolu la ko champion gi nii champion gi nii. awal fii awal fii daal waaw père maa lay fay. yéen laaj fu préparation bi toll. waaw noonu la maa ngi sant yàlla jël si yonent bi ak suñu yaay ñaari waajur. yaa ngi dégg du nuyu ñëpp ñu may seetaan dëkk bii ma ñëw rek balaa may commencé damay nuyu sama ay maam ak sama papa yi fi nekk ku ñu mel ne suñu maam suñu lépp. Mouhamed Ndiaye Robert champion mag maa koy nuyu di nuyu njabootam di nuyu sama papa Manga de di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu sama papa Amoura Sarr di ko nuyu di njabootam di nuyu Yaxya Diop Yékini la grand champion di ko nuyu di nuyu njabootam di sant yàlla bu baax a baax di wax ne gis nga dañoo ñëw parce que Pape Thiès moo ñu woo fii sama contrat maag Tapha Tine ñu ñëw bëgg a def prestation nu mu demee mais lamb ji niveau lamb mu demee nii di sant yàlla bu baax a baax baax. waaw. Euh, préparation bi lay laaj. saison bi na li ci dal li bi ñëpp xam ko. gis nañ ne lamb ji ubbi na. foo ci préparation bi ak combat bi lu mu la jaral. waaw ci mbër yi nga xamante ni. combat ou pas combat dañu nekk ci entraînement. waaw parce que ñun dañ jàpp ne. dañoo nekk ay mbër yoo xamante ay mbër yu ndaw lañu. kon mbër mu ndaw bu bëggee am fu mu teg bëtam entraînement dañ da war fekk. promoteur bu jékki-jékkoon sax daan nañoo combat bi dafa yàgg léegi dañ ko bëgg a bëre mois prochain ñun dañuy daal pare parce que ñu ngi ci ñu ngi ci chaque jour ñu ngi ci incha diis na. dafa atin dañ ne risque la. ñooñu loo leen waaw li diis li diis laa yenn ba toll ni ma toll. maanaam lu diis sama màgg loo ba toll fi ba yegg si tafaatin lu diis rek laa lekk ba suur ba toll ni ma toll. boo xoolee fi ma jaar nga xam ne amul kenn ku ma tollal poids amul kenn ku ma tollal gabari amul kenn ku ma tollal âge loolu la ma yàlla bindee waaye poids ay ponkal rek laa jàngee bëre moo tax may gën a nekk à l'aise bëre ponkal ko ma bëre sama morom wala ma bëre ku ma tollal donc nag mbokk gi dafa yaatu ñu ñëpp ñoo bokk bawal mais li làmb la ba bay làmb suñu métier la dañ cee toll man ma nekk xale am fu ma teg sama bët te dafa ne ni tafaatin a keneen ak keneen du ma ko xaj dama sama bakkan laa ci teg kon li ma waxoon rek dañ toll ci buntu bi benn caabee ci nekk te man moom ku ma tee dugg sama bakkan laa lay jaay waaw. moom nee na fekk si la Pikine da koy waaw te xam ne ne ngeen moom chez moi la waaw moom se chez moi mais dara loolu yëpp du tee làmb ji dañ koy teg ci yoon dañ koy teg ci yoon dañuy entraîné ne fonk lool làmb bi ñu jugee lu bari lañ jàngal ci làmb donc ay xale lañu waaj nañ bu baax a baax a baax koy teg ci yoon maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu ñu ma àndal fii yëpp di nuyu sama mag Lamine Seck di nuyu Thierno di nuyu sama gars yi ma àndal yëpp ñi nga xam sama ay xarit lañu ak Abdou mi nga xam dafa jóge France ñëw ak sama waa équipe yi ñoom Grand Magique ñoom ñoom dégool gars yi mafia yëpp daal. xana fi gis nga xana fi dëkkam lañ ko fekk mi ngi dëkk ñoo ñoon fi grand magique mi ngi nii waaw mi ngi loolu ordinateur ñoo ñëpp sama équipe lañ nekk maa leen bëgg bu baax a baax di nga ne da yor sa kaasu fondé da ci tànk jox ko mu naan mm-hmm. dama ko koo wax mu ne ma kaas bi kaas dugub yi duñu benn te kaas boobu laay wëlbatiku sotti ko ko waaw mais kaasam sax foog ma def ci xorom mu gën a sàmm da nga ciy toll kaasam waaw parce que am nañu naan ma leen suukara mm-hmm. mais tafaatin ci kàttanu yàlla ci barke Cheikh na Sessal bi bëgg naa kaasam am xorom wala ma sol ko bu baax a baax incha allah mm-hmm. maa ngi nuyu waa kër Cheikh na Sessal abi waa kër Cheikh Mohamed Faral sama kilifa diine yëpp di leen wax seen doom Boy Niang mi ci combat ba am solo. di nuyu fii nag ma nekk mu joueur parce que man doomu séeréer laa. waaw maa ngi nuyu ñëpp a séeréer bu mu pire. maa ngi leen nuyu di leen ziar ba di leen ñaanal. ñu ñaanal ma suñu moom defal ma tam ci combat bi ñu jëm di nuyu Pape Talis. ak Diaw di leen bëggee bu baax a waaye borom baax nañ macha allah nga lii rek ndaw boo ñaar tafaatin leen da ngeen a xamul combat bi tëgg sax combat dàq ko parce que combat jànk la combat moom du ma may dara tamit ñaanu ma dara te lu moom may ma jël waaw combat bu neex la incha allah rabbi nee na ku bëre waa DSR sa combat moom mënul tiis ci moom waaw moom daa dem doole naa droit ba yàlla dem muy dëpp man nag foofu laa teg sama bëpp am na combat royal kon moom làmb di ko dese bari na te fu mu teg xam na ko fu ma teg sama di wax fii laa dem fii laa bëgg a dem damay ci liggéey bi rek parce que ku dara il faut nga def dara maa ngi nuyu waa Ili Saalum lépp waa Mar Faba ko waa Mar Roj maa ngi ñëpp soo mbokk séeréer di leen bëggee di leen wax ñu ñaanama suñu boom defal ma ndam bu baax baax a mais képp ku ma àndal def dafa laas maa ñëw xamal ni boo ñaa nuyu na la boo ñaa bëggee di nuyu waa Pikine suñu boom defal leen combat bu baax a baax maa ngi nuyu nag combat bi ma àndal macha allah lañ ñoom ñëpp topp ma parce que Pape day wax rek dañ ñëw ak cinq six personnes mais xam nga am na fooy toll ci laam boo jugee rek ñëpp dañuy daal di jóg te doo a wax kenn toogal moo tax ñu ñëpp ànd ñëw quoi maa leen sant di leen gërëm di ñëpp di wax ni li fi def rek loo xamante nii dafa dëng rek ñuy baal wax que parce que tafatin ay frère lañu yaa dégg gars yi bëgg a amul kenn ku fay mooy ñëw mu dëgal boobu mu dëgal sama bopp lañu xeex waaw noonu la moom bu xamee loolu rek lépp dafay jeex man su ma xamee loolu rek lépp dafay jeex jaru ñuy buuxante jaru ñuy xëppante suuf yëpp jaru ko mm. maa tafaatin man maa jël avance tafaatin te xam naa ne damay bëri ak moom xam naa ne bi ñu suuf la man ak mbër la la ma nga xamante ne bii ku bëri moom faaw nga xeex mm. ba ma ko laajee ne ko lan ngay andi mu ne ma booy ñaa mu xeex waaw moom bañu ma xeex bi bañu ma xeex bañu bëre man doomu mbër laa ci lamb laa judd man damaa judd fekk nemb li xam nga mbër yu bëri dañuy wax sama ma mbër la mais man dama am ñaar dama ñaar avantage si yaay mbër la waaw que sama nijaay boo ñaa mbër la maa ngi nuyu Cheikh Niang mi ànd ak man di doomam waaw mbër laa ci ñaari côté donc tafaatit ma wooyee ci bëri damay jël moo yor ci xeet damay jël fu lu ma am moom mooy damay pare bu jour ma ñëw pare waaw su boobaa lu ma woote damay ñëw wuy si ko incha xam nañ ne ambianceur nga lan ngay wax supporter yi ak fan si jour ba lan ngay andi ci chorégraphie. waa noonu la déggoo li ñu wax nee na ñor taab bi moo gën gësam. ñor taab bi. moo gën gësam. lu lu bees la wala. waa lu bees tàkk la. ñor taab bi. waaw moo gën gësam. dañ koy tëgg dañ koy wax. xam loolu ñun moom lu ñu wax dañ koy feet ñun moom lu ñu wax dañ koy feej bi passé ba mu la waxee curuxu curuxu curuxu nga dañoo ko moom lañ feecc léegi mais ñoo tab bi moo gën a gësam koy feecc bu soobee yàlla incha allah waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw xam ma mango moom bu ñu yoree tab bi da gën a neex lekk te tam nga boole ko ay kaani ta baaxul waaw jàmm ci ñëpp ñu ngi ziar ñëpp waaw jàmm ci ñëpp bu jeexee rek def nga lépp maa ngi lay fay waaw am na ñu tey nga waa di sant yàlla rek xam nga ñun moom ay ay ay jeunes sportifs lañu comme niñ koy waxee maa ngi lay nuyu nag di nuyu waa Joal yëpp. di nuyu waa kër Robert Ndiaye tey ñoo ma dalal ñoom góor gi Senghor xam nga ñoom Mbagnick Ablaye Ndiaye mu ngi ànd ak man kon Joal man dama fi am lu rey quoi. waaw di sant yàlla nag xam nga. di nuyu di nuyu aussi Pape Thiel non depuis le matin fi quoi mais sant yàlla teral nañu moo teeru nañ moo xam nga te li laa xam ci ñoom su ma dëkk la yàgg naa fi ñëw. kon maa ngi sant dem naa ba ci Père Robert nuyu ko. xam nga di ko ñaanal mu wér quoi. di ñaan nag xam nga lamb ji ubbi na yal nañ ko ubbi ci jàmm bismillahi rahmaani rahim tëjee ko alhamdulilahi rabil alamin champion yi amul combat am combat di ñaan yàlla sama combat yàlla may ma ndam parce que ci contrat rek tey contre booy Niang tey moo ma indi fii pour remplir sama kontra loolu la way préparation waaw xam nga yàgg nañuy xam nga yàgg nañuy pare yaakaar naa daj nañu trois fois saa boo ñu gisee ak bu ñu gisoon du doon benn kon sant yàlla ñu ngi ci waaj taay yi quoi. bay waajal bés bu toll nii bool bool yëpp nekk sa ginnaaw 100 pour 100 loolu lan la def ci yow. waaw yàgg nañu waaj xam nga ku waaj bu bëri waa des arènes amatul combat bu la jaaxal man Tapha Tine amul benn combat bu mu mun a déstabiliser suma life combat bu ñëw rek dama koy gérer préparé ko ni ma ko war a paré koy pare ko yee di nuyu waa Bawol ah di leen sant di leen gërëm ñoom ñëpp di leen wax ne Tapha Tine am combat jàpp xam nga. may leen roi bi ni mu gën a gaawee loolu mooy objectif bi amul leneen way waaw Thialis moom xam nga dañ koy nuyu teg na ma yàlla may ma ndam mu ñëw tegaat ma kon du ma ko def lu di ko noyu di ko sargal di xam ne jig na ma sant yàlla alhamdulilah. ñu gis yéen ñaar da dugg si léegi rek daje ci géew coow lu bari mu mel ni combat bi coow li commencé naa bari lan la. waa mais c'est normal lamb la ñaari borom ginnaaw ñoo daje noonu rek la ma demee ko addu leneen. <laughs> mbër yaa ngi ñaq waaw sant yàlla rek xam nga sant yàlla ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey quoi. am na lu ma la waxoon ca ca ca poto fondé ba yaa ngi koy fàttaliku. waaw lan laa la tontu ma ne dugub dafa bari ay façon nga ne ma lan. waaw dafa bari façon dinaa la ci leeral lu bëri. ñëwal ma ci du façon. non am na am na am na. waaw non saa Fatin la borom tax kirip alias Akande loolu dafa leer voilà mu ngokk. waaw di wax comme adversaire yi aw ma dara lu ma wax géew bi moo ñu boole après léegi géew bi jiyee na quoi. mais euh, dañu gis sa mbokk yi datu combat ndax yow gëm combat bu ma am dama koy respecté ba lu ma yàlla may ma xam ne loolu la man damay pare combat comme ni muy pare combat yëpp quoi lu ma yàlla may nag ma xam ne lii la ma yàlla set alhamdulilahi rabil alamin ma sant ko yàlla quoi. lan ngay wax sa adversaire est-ce ko. non xam naa ko xam na ma du problème loolu moom énewee ko loolu moom waa détail la. lan nga xam ci comme ni mu ma xamee rek am combat ma koy seetaan ma am ma may seetaan. yaa ngi seetaan ay non mënul ñàkk bu am adversaire di nga ko étudier xam lan la ay point faible la ma war a seet. waaw. bu bëri mbooloo lool. waaw arène nationale tax mu baax te neex nag. voilà mu ngoog. non loolu mooy baax. baax bi loolu mooy baax baax bi mooy baax baax bi dëkk gi mu dégg Pikine loolu mooy baax baax bi ma nar koo fekk foofu incha allah non mooy li ma la tey amul benn lamb bu nekk production ci man ku bëre ba bëre roi des arènes non wax dëgg yàlla war a toog tiit ci lamb dara quoi ngoog jërëjëf. Ah. waaw di leen jox rendez-vous bés bi rek di wax ne waaw Pape Thialis waaw nañu jox date bu fixe rek boo xam ne nii vingt cinq juillet la wax ñu ngi koy ñaan bu mu toxu bu mu rendu na doon bés boobu rek incha allahu rabi. mbër mu mel boo xoolee préparation yi day yàgg chaque jour ñu ngi entraîné xam nga te ku ne xam na ne comme combat détails yi ci nekk quoi loolu la. mais lépp dañ koy sant yàlla xam ne dëkk bi moo tollu foofu monde bi moo tollu foofu di ñaan Covid bi yàlla na fi jógee. léegi wooteel wooteel wooteel. waa di woo fan si yëpp di sant aussi ñi ma àndal tey ñi ma àndal tey maa ngi leen di sant nga xam ne ñaari oto lañ jógee Dakar xam su sumay frère lañu sumay grand frère ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ah. di woo ñëpp di sant waa Soal aussi di woo kulu séeréer ñu ñëw jàppale ma ci lam ji yàlla may ma ndam incha allahu rabi. Ah. jaajëf champion jërëjëf merci. Doudou Sané ko daan na ko daan. Toubacouta Joal Fadiouth ah Toubacouta Toubacouta an bëgg añ léegi eh Joal Fadiouth ngi ci bu suuf bi eh Toubacouta Joal Fadiouth Toubacouta Joal Fadiouth plaqué na ko Toubacouta lu muy def nii daan na ko Joal Toubacouta Joal Fadiouth daan na Toubacouta Toubacouta daa jaaxle kàbb jëlal ma Toubacouta Toubacouta Joal Fadiouth daan na ko Joal Fadiouth Toubacouta Toubacouta Joal Fadiouth laay Toubacouta am na lu ko bett jëlee ma Joal Fadiouth Joal Fadiouth a ngi noonu Joal Fadiouth daan na Toubacouta Eh, lii lan la dalay mbot atul atul dalay oh daanu nga ki doon mbot daanu na bajo fiufa batanelo lage kor xade korngo fe mbapne he doya me de kiñana e wawa e pisajo fiufa batanelo lage gor xadis dorgo fe mbapni he doya mais de kiñala ye waaw e pisadio fiu fa lo la luna, por nadie por lo que va a e pisajo fiufa mbatanelo lage gor khadi korgo fe mbapte heɗoya me de kiñanaye waaw e pisajo fiufa mbatanelo lage gor khadi korgo fe mbapne heɗoya me de kiñanaye DJ Episa Diouf yu baba tanelo lage gor khadi gor go fe ni hedo ya me de kinyana e ah. lage Mor Khady gorgo fe mbapni he doya mbede kiñana e e Pissa Diouf yube batanelo lage Mor Khady gorgo fe mbapni he doya mbede kiñana lage kor xadi kor ngo fe mbap ne doya me dëkk ñaana ye aha e baba tane lo kor xadi kor ngo fe mbap ne doya me dëkk ñaana bir safa bosa janabe rok fa biram dem ne wago kam xelle jange ah bir safa po ma fanabe rok fa biram dem ne wago kam xelle jange oh oh Pakala Junior Doudou Sané war na Pakala Junior Doudou Sané Pakala Junior Pakala Junior oh, Doudou Sané yoon na ko oh, daa daan Pakala Junior Doudou Sané Doudou Sané daan na jàppante nañu Sele Ibou Senghor Ibou Senghor ko Sele plaqué na ko Sele daan na ko Sele plaqué na ko mu daanu Sele plaqué na Ibou Senghor mu daanu Sele plaqué na Ibou Senghor mu daanu jaar naa la. waaw ah, sant naa la yow. waa mais secret bi lan la. ah affaire bi noonu la rek maa ngi nii de lii laa am de. waaw lii ren gis ni ngay daane poids lourd dafa yomb. waaw kii am naa ko deux. waaw man damaa yàgg si làmb. te damaa war a def dara. waaw. mais ne des na yeneen champion yi nekk ci kanam naka nga naa jëflanteeg ñoom. ñoom daan rek dem. damay daan rek dem. wóor na yàlla. waaw kon baax na ci kanam maa bu sana. bu sana. إلى سبيل ولا تطلع moo ngi koy na ko daan na ko njool a ngi noonu sey njool aka bay fem Ndiol a ngi noonu. Habib sifle waat na Doudou Sané ak Famara. Doudou Sané Famara. Doudou Sané Famara. Doudou Sané Famara Doudou Sané Famara Famara nga koy accéléré Famara nga way Doudou Sané way cey njool jëlal Njoola ngi noonu Njool fàq na ko na tànk ba Njool Njoola nga ca wet ga Njool lu muy def baatu na caxabal Njool Njool baatu na ca Njool baatu na caxabal Njool da koo bëgg yenu Njool da koo yenu Njool war nañ doomu Njool dañ koy daan. oh Ndiol dañ lay daan Ndiol dañ lay daan. Doudou Sané. abi sifle waat na ñoom mbokk yi ñoo ci quart de finale bi diggante Fama ak Doudou Sané ñoo ngi lewaatoo jàppante nañ loxo euh, Doudou Sané bëggoon na ko plaqué waaye daa sori Fama ak Doudou añ na ko takk na ko Doudou Sané takk na ko xar na ko yenu lii lan la eh Fama rëcc déedéet. doo ci rëtt duut saane la yenu lu ko bëgg a def da ngay toog da ngay toog daanu na daanu nga duut saane daan na faa. jaar baay ñu gis ne euh, mbabat bi depuis samedi la woon ak tey tey nga ñëw dem final lan nga mën a wax ñi nga xamante ni ñoo leen seetaan. waaw sant yàlla la rek baay ndax xam nga ni kenn mënul quoi dañuy jéem rek. boo te jii bu ñu demee ba taxaw nii nii seetaan sant yàlla rek la ñuy def waaw. mais tey gars lan lañ mën a xaar yow lañ mën a xaar ci yow final bi. ah ñaan yàlla yàlla may ñu dam rek daan rek la ñuy yàlla may yàlla may ñu dam rek. baax na bonne chance. ok. waa ziar naa la. tur bi naka la. El Hadj Ndiaye. El ñu gis euh, làmb ji depuis démb la woon ba tey. tey yàlla def nga dem final lan nga mën a wax ñaan wax parce que lamb ji ñoo seen mboq la woon dem na ba final yàlla def na ba def mottali bi ba mu mën a àggale ba jël ko xol bu sedd guy ndam des Joal Fadiouth des Joal. jaajëf maa ngi lay jaajëfal. ok jaajëf ok nice na. final point les avangok ci diggante El Hadj Ndiaye ak Cheikh El Hadj Ndiaye mbokk yi moo féete à gauche Cheikh moo féete à droite mbokk yi boo ko El Hadj moo fee moo xaw a yottin clé tuuti mbokk yi dimanche final poids léger yaa ngoog ñoo ngi fii ci Joal le mars maa ngi fii too ak Mbaaka tey noo gisee lamb xanaa kontaan na am mbégte. lamb ji neex na lool lool lool lool. waa Leewtoo da ngeen di ñi wala da ngeen di dolliwaat li simple. dañuy dolli da koy def neex yokk gis ngeen Alaaji Ndiago ak Cheikh. final poids léger. Cheikh à Alaaji à ñoo ngi lewaatoo mbokk yi ñoo ngi fii ci Joal Fadiouth ee eh, jàppante nañu alaaji jàpp na seex bañ na ko takoy takk takoy takk lu mu daan na ko laa lay ee alaaji njaay lu mu def seex Alaaji Njaay lu ko def da takk wëlbati ko ak moom da ngaa jommi Alaaji jàpp na seex bañ na ko da koy takk da takk lu ko def daan na ko laa lay la laa saane ñu gis euh, booba ak léegi nga dem final non non noo dundee bii final waaw ah, sant ndate lii du premier si ñun quoi yàgg nañ di finaalu kon mun kon tey kontaan rek kontaan rek di ñaan borom bi ñu mën ñu ndaw quoi ok. jaajëf. mbër nuyu naa la. waaw delloo naa la yow. bi naka la. Bandi 40 ans. ah. 40 ans. 40 ans. waaw. Bandi 40 ans. waaw. ñu gis sa boobaa ak léegi nga am nga dem final di desante ki nga xamante ne Doudou Sané lan ngay wax ñu lay seetaan. ñi may seetaan xanaa kontaan si ñoom rek waaw wax leen tamit ñu gën a defarwaat tamit xam nga rek bañ a yàq làmb ñu ñëpp ay simple nit lañ rek waaw di wax ñu ñaamal leen jàmm rek ma jël làmb ji incha allah. jaajëf Bandika. mbokk yi gis ngeen. gis ngeen.

mbokk yi final poids lourd baa ngi noonu Doudou Sané bandi 40 abit baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ laaj na ko Doudou Sané ba xam bandi 40 ans na pare Doudou Sané na abit bi sifflé na final poids lourd mbokk yi ñoo ngi fii ci Joal le 28 mars dimanche. 23h13 ñoo ngi leewaato Doudou Sané à droite Bandi 40 à gauche lii la ñu namoon lii la ñu namoon ñoo ngi dégloonte baa ngi nang leen bëre leen Bandi 40 Doudou Sané daw na ko Bandika bañ na Doudou Sané plaqué na ko bañ ñoo ngi bëyee mbokk yi loolu nattante la Doudou Sané la koy natt Doudou Sané Bandika Altan Pape woo tey fii ci Joal Fadiouth Doudou Sané nee na teq na laa jàpp na tànk bi teq ko léegi li ma gëj a laa gis si tey Doudou Sané bandi 40 ans Doudou Sané bandi ñoom ñaar Pape Thialis wàcc na ci presse bi toog di saraan final bi bu Ousseyn. gis nga lii xam nga lii fii rek la am Pape Thialis a ngi toog ci suuf lamba <laughs> gi nii. lii mooy lamb. organisateur bi ñëw na ci suuf fi presse bi toog ñëw di saraan lamb yi. Pape Doudou Sané Bandit maa ngi ni maa ngi ni ak Pape Thialis. Doudou Sané bandi 40 ans. Doudou Sané Pape Thialis soo gisee combat bi. waaw combat bi neex na donc ñaari ñu mën bëre lañu boo xoolee sen parcours ñoom ba yegg si ba final ñu ay champion lañu donc ñun aussi am innovation mu si def kii nga xam ne moo jël finalu léger ak finalu lourd si bésu Tapha Tine Bombardier di jël Tapha Tine euh, ak euh, Boy Niang dañ siy bëre incha allah. maa ngi liggéey loo patron Mbaye Babacar ndax dama koo bëgg a reporté loo waaw man mënuma reporter rek. Mbaye Babacar maa ngi liggéeyaloo sa patron fii ci wet sa patron laay liggéeyaloo. non yooyu. da ngay reporter loo sama DG. loolu laa ko def loo tey. lamb jaa ngi noonu. Ouzin Père Max Mbargane wàcc na def baax ci suuf di reporter lamb ji. mel noonu. li mooy lamb. Doudou Sané cosaan la day yëngal yaramu mag di yëngal yaramu gone. ñoo ngi fii ci Joal poids final poids lourd. Bandit 40 ans Doudou Sané. ñoo ngi lewaatoo. ba max lamb yi dafa mel ni poids lourd poids léger la. déedéet. kii du léger chef diis diis la. kenn mënu koo def lu ko neexul. Ah. ni mu doole jëpp na ko. Ah, gis ngeen dégg ngeen ba max. Neex du lese hey jël na ko wey waa lii lan na ko Doudou Sané badi quarante ans la lay la ji lamb final quel très bel final le public bi bëre feeñ na bandi 40 ans badante nañ wondeelu nañ taxawaat kii bandi 50 ans la kii bandi la wenger la hey Doudou Sané Doudou Sané tey jeexle la Doudou Sané yem na tey yem na. yem na client moom Doudou Sané. boo xam ne xamul fu mu koy yëkkalee Ouzin. tey jii làmb. Doudou Sané bandi 40 ans. ñoo ngi ci digg géew bi ñoom ñaar. final poids lourd. Ouzin man damaa waxoon cameraman laa bu sawar ci làmb. mais léegi damaa commencé bëgg làmb. ndax lii dafa neex da nga yëg sa bopp bu baax a baax a baax. li cosaan la kàggu. boo ko ñemee doo ko dolli. lañ naan la mu saf ko ko maj ko xam ñoo ngi fii ci Joal Doudou Sané Bandika en temps te nañ fii léegi làmb ju neex Doudou Sané Bandika en temps Pape Thialis nee na combat bi ku daan mu dugale ci journée bi nga xamante ni mooy Boy Niang ak Tapha Tine ah waaw. Eh, loolu nouvelle bu neex la. loolu nouvelle la bu ko bu ko mbëri yëngal dinañ ba dee. moo tax làmb ji a yomb kaagu. dama dem dem dem dey leen ko. déedéet ñoom dégg loolu. Habib baa ngi ñoom. laaj na leen ku ne pare nga mu ngi laaj ay jugeem Habib bi sifle na. Doudou Sané. Bandi 40 ans. Bandi 40 ans à gauche Doudou Sané Bandika en temps na yooyu rek jàpp ko ñoo ngi lewaatoo Doudou Sané Doudou Sané Bandika en temps Bandika en temps daw ko Doudou Sané biij na ko mu bañ añ na ko añ na ko Bandika en temps Doudou Sané Doudou Sané jàpp na Doudou Sané jàpp na Doudou Sané jàpp na Doudou Sané jàpp na Doudou Sané Bandika en daa bañ. Dutsane Bandika antan Dutsane nengeñ na ko Dutsane nengeñ na ko moo ngi loxo bi ci gaño bi eh Dutsane fi mu jàpp baax na Dutsane fi mu jàpp baax na Bandika antan jàppul Dutsane Bandika Doudou Sané jàpp na moo ngi yor loxo bi ci ginnaaw añ na ko da nga yenu lu koy def eh, Bandika Anta añ na ko yenu ba ci kaw waada amul Doudou Sané Bandika Anta eh xale bi na ma ko fay ma sa waxee woon saw diis la Doudou Sané Bandika Anta Doudou Sané am na ñaar loxo ci ngemb Bandika Antan jàppul fenn Doudou Sané Bandika Antan na ko léegi benn loxo baa ngi ci biir benn baa ngi ci kaw ngemb li Doudou Sané jàpp na Doudou Sané Bandika ñoo ngi déglante ñoom ñaar Doudou Sané jàpp na nengeñ Doudou Sané Bandit 40 ans Doudou jàpp na ndengeñ Doudou Sané Doudou Sané Bandit 40 ans ku nekk ngi jàpp di déglu sa morom waaye Doudou Sané kon ndengeñ ndengeñ bi dafa mel ni dafa commencé sonal Bandit 40 génnewaat na loxo bi dugalaat na ko ci biir Doudou ngi jàpp ne tekk di ko déglu ah Doudou Sané 40 bi nga sigi est baax na. final mbokk yi ñoo ngi fi ci Joal Fadiouth dimanche mars moo nga may wet bandi 40 ans ba na dangay daanu wóor na ko ndombo wóor na ko ndombo 3 appuis. Doudou Sané Bandika temps war na ko da ngay da ah, daanoogul daanu na daanu na daanu na Doudou Sané Doudou Sané Doudou Sané bi Doudou Sané jël na final bi Doudou Sané Doudou bi Doudou Sané daan na Bandika temps mbokk yi dimanche le 28 mars may wet Bandika temps ba wóor na dangay daanu war na ko ndombo war na ko ndombo trois appuis Doudou Sané Bandika temps war na ko dangay da ah, daanoogul daanu na daanu na daanu na Doudou Sané Doudou Sané Doudou Sané jël bi